auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare noo ci fukki yëlu jotaay ak juróom benn ci téereb Xalimag Leer noo ngi tolloon ci wax xeetu ñaan yi sëriñ bi di ñaan ci ay bindam weesu woon nañ ci xasid ak sindidi tey nag noo tàmbalee xasida ak tuxfatul mustadarriin xasida ak tuxfatu xasida la goo xam ne Sëriñ Tuubaa mi ngi ko bindee Mbàkke Bawal ci càkkutéefu nijaayam yu ñuy wax Sëriñ Musoobe am na bayit wu Sëriñ Tuubaa di wax ci biir xasida gi nee ñu moom Sëriñ Musoobe mi ko sàkk woon la Sëriñ Tuubaa junju ci bayit woowu bayit wi mooy sunu borom yan na nga ma may kóolute ak ngërëm te may ko ki nga xam ne moo sàkku ci man ngir ma way xasida gi wali ya jut wali lidi daani li nazmihi bil amni war ridwaani xasida ak tofatu mutadarriin mi ngi toll ci juróom fukki bayit ak juróom-ñett cinquante-huit bayit sëriñ baa ngi ci tawasul ci yi nit ñu baax ñi di ñaan yàlla ci seeni barke li waral lool nag moom sëriñ bi leeral na ko ngir dafa wax ne ñaan day waral texe ak mucc di yéwénal mbir ci sartub sellal ak tawasul ci gaañu baax ñi imaam Xasaali nee na ku bëgg am pajug aajo tey ak ëllëg ci lu dul menn njaay nay tawasul ci turu ñi nga xam ne ñoo gën ci mbindeef yi qaala al al gazali laa zaala da ridwaani inda al waali fama yurid nayla xadaai lxaaj huna wa fi xadin bil istidraaji falyatawassal bi asaami man ara bi asaami man jara tafdiluhum ala siwaahum fi lwara loolu mi ngi ci xasida jaalibatul masarra sëriñ bi di leeral tawasul njariñ li ci nekk ba tax mu jëfandikoo ko ci xasida ak ñii ñooy jëmm yi imaam xasaali di wax ne ñoo gën ci mbindeef yi ñoom la Serigne Touba indi ci xasida ak toxfatu mu mooy ulul azmi di juróomi juróom ñi gën ci yonante yi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayiduna isa sayiduna muusa sayiduna ibrahim ak sayiduna nuh mu tekkee al asratul mubasara bil janna ñooñu nga xam ne dañu leen a bégale woon ajjana mm, Seydina Aboubacar Siddiq Omar ibn Abdul Xataab Seydina Ousmane Seydina Aliyu ak euh, Talha ibnu Ubay Ubayda ibnu Ubaydallah ak Zubayr ibnu Awaam Saad ibnu Abi Waqaas Saïd ibnu Zayd Abdurahmaan ibnu Awf ak Abu Ubayda ibnu Jarax ñooy fukk ñi nga xam ne dañ leen a garanté loon ajjana ñoom seen seen indi na seen i tur ñoom ñooñu di di ci tawasul ci biir xasida ak Tuhfatut Mudarrihin ginnaaw ñooñu mu teg ñeenti waram xam-xam yi tudd Abdullahi muy Abdullahi ibnu Abbas Abdullahi ibnu Omar Abdullahi ibnu Mas'ud Abdullahi ibnu Salaam Eh, mu teg ca ñaari bàyyi tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy abbas ibnu abdul mutalib ak xamsa ibnu abdul mutalib ginnaaw bi mu teg ca sëti yi sëti yonent bi sallallahu alayhi wa muy xasan ibnu abi talib ak xasan ginnaaw ba mu indi njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa muy qaasim tahir tayib ibrahim fatimatu ruqaya zeynab ak umu kalsum ginnaaw ba mu indi juróom-ñetti kilifa yi ñu ràññee ci ak dëddu àddina ginnaaw yonante bi sallallahu alayhi wa ak saxaaba yi muy aws ibnu amr nu gën koo xam ci waisul qarani haram masruq rabia al aswad amir ibnu amir ibnu abdurahman abu maslama ak alxasanul basar yi ñooñu indi na seeni tur mooy ñu ràññee ci ak dëddu ñu baax indi na seeni tur ci tafatul mutadarrihin ngir di ci tawassul way ñàkk yi saxaaba yi ñu leen wax ahlu sofa mooy ñu dëdd woon àddina féete ci jàkk yontu bi sallallahu alayhi wa bilaal sohebu ak abu darda juróomi saxaaba yi nga xam ne jàmbaari xare lañ muy indi na leen muy miqdaat daat ibnu xaalid ibnu walid zubayru Omar ibn Xataab ak Ali ibn Abi Talib mu teg ci juróom-ñaari waram xam-xam yi fiq yi newoon a munawara ñoom ñooñu dañoo géeju woon lool ci xam-xamu fiq ba eh, wax nañ ne ñoom lañ daan woowee alfuqaha wa saba juróom-ñaari borom xam-xam yi fiq yi Omar ibn Abdul Aziz ba ñu ko falee mu jiite a munawara ñoom juróom-ñaari ñi la tegoon ci wetam di diisoog ñoom muy Saad Urwa Xaasim Xaarija Abubakar Abdullahi ak Suleymaan ginnaaw bi mu noppee ci ñooñu mu indi ñeenti eh, waa kër yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy sayidatu sayidatuna Xadija sayidatuna Aïsa Xafsa ak sayidatuna Zeynab ginnaaw ba mu daal di indi ñeenti imaam yi nga xam ne ñooy waroom ngir yi eh, gën ngir yi gën a siiw muy imaam abu xanifa imaam malik imaam saafii ak imaam ahmad ibn hanbal ginnaaw ba mu teg ci malaayka yi almalaykatu muxarabun malaayka yi jege seen borom ñi jibril mikail sidna jibril sidna mikail sidna israfil ak sidna azrail kon yii la sëriñ tubaa indi ci biir tuhfatul mutadarrihin di ñaan ci seen barke kon bu nu dellusee day yeggale xasiida gi incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.